mbokki taalibe yi ci àdduna bi bu ngeen yoroon walla di mën di dem ci ñoom di leen fekk di leen déglu ñuy wax seen seede ci yéen ci outil informatique ni ngeen ko boole ci seen biir liggéey ak ni ngeen ko fësale dimbale ko mag ñi ba fësal seen liggéey fu mu warul woon a yegg mu yegg fu mënul woon yegg mu yegg bu ngeen déglu woon mbokki taalibe yi ci biti daa ngeen ni ah nun day lii eh, foogunu woon di ndeke yëgg na foofu wëral tuuti nga dem France wala Italie wala Espagne wala États-Unis ba Chine ba faneen fu dul foofu tey bu dara xewee ci senegal gii ñoom dañ koy bëgg dunde niñ ko daan dunde bi ñu nekkee senegal waaye mënuñu ko parce que distance tax na mënuñoo yegg dayiratul asfiya yi bokk na ci dayira yi nga xamante ni ñooy liggéey lu xew ñu fexe ba muy yegg fu mu mënul woon yegg ci ay kilomètres yi kilomètres des milliers de kilomètres nga fexe message yu mag ñi yegg fa kooku ku koy liggéeyal mag ñi rek euh, mag ñi mënuñu laa fay moo tax ba tey dama koy gëndi wax naa ko pap mi ma ne ko bu leen ko bàyyi ci seen biir liggéey outil informatique dafa bokk ci biir liggéeyu mag ñi naam mag ñi bi ñu fiy nekk boobu amul waaye bu doon jamono bii yàlla indiwaat na leen ñu ñëw daañu ko digle mu bokk naka dénkaane ci seen biir doxalin maa ngi fàttaliku Serigne Mansour keroog ba ñu ko yóbbulee documentaire bi ñu defoon te dugal ko ci situ Zawiya Tijaniya keroog appréciation ba mu ca def moo lay wax ni rek ñoom bëgg nañu ku jéggi fi nga nekk waaye koo xamante ni fu ñu la fekk ren bu déwénee fa lañ la fekkat daayira yi nañu ko soppi mu nekk ay jumtukaayu liggéey liggéey pour diine ak tariqa ak mbokk mais mënatul a nekk mënatul a nekk élément d'exploitation pour exploiter ci nit rek di ko wax suba ba ngoon lu koy mandiloo ci sëriñam pour jël la ca moom wara defloo ko lu mu mënul mënatul nekk ci dayre yi nañu ko soppi mu nekk liggéeyukaay ñi ci nekk nañu góorgóorlu fexe ba bu dayre ba mënee pourvoiral leen ay ay ay liggéey ñu nekk ca parce que am na ñu koy def di embaucher seeni membre ñoom ñooña ñu mën di am lu sàmm seeni ngor am na ñu créer seeni GIE ca wet ga am na ñoo xamante ni dañu créer entreprise ca wet ga daayira bi di ko doxal ñu jël ci éléments yi ñoo xamante ni ca biir daayira ba ñu ngi doon wut ak a sàkku métier bu ñu mën a dëgg sàmme ca seen ngor amuñu ko daayira bi moo leen ko mujjee pourvoir boo demee ci àll bi am na ci ñoo xamante ne ay champ collectif lañu wut taxawal ko pour fas yéene bëgg rek bañ a yam ci tàllal sa loxo pour que parce que ku miin xamuloo ku miin sab ñaan rek boo moytul yàpp la ku miin sab ñaan yàpp la moo tax soppi leen ko mu nekk ay instrument de travail mag ñi bu ñu bëggee ñun ndaw yi yokkal leen un plus ci seen biir liggéey yi dootuñu yem rek ci fettasoog bége déedéet dañu koy soppi structure ko ba mu nekk structure mu am structure administrative wëlbatiku ñu teg ko jumtukaayu liggéey yi ñu laaj danoo mës a dajaloo am kenn ci nun ñu ne ah nun ko bi dañuy ubbi compte am ku ñëw ni waaw Serigne Babacar si bi magi dakaar yi ñëwee dañu ni daayira mënul nekk dañu ni daayira bi dañoo bëgg a ubbi compte mu ne leen daayira du am compte ndax bu amee compte ñu xam la mu mën ak la mu mënul kon nag nu nit ñu àndandoo ca mu nekk polémique ci biir daayira bi ba ñu faf sàkk ñaari délégation dem seeti Serigne Abdoul Aziz bi ñu dikkee ni ko nun danoo bëgg a ubbi compte kenn ci noonu bi ñu waxee compte bi mu ñëw ni sëñ Babacar dañu woon daayira du am compte sëriñ Babacar ni sëriñ Abdoul Aziz ni ah lu tax wax loolu xanaa xamul li muy wax mu ni jamono ba mu koy wax booba xëy na loolu la jamono laajoon mu ni waaye jamono bi bu dellu si waatoon dana wutloo daayira yépp compte mu ne ndax bu amul kenn ki ngay jël dénk ko alalu daayira bi yenn saay mooy ëpp fulla def ko def ko poosu boppam lu ko neex mu cibb ko ca def ko ca te bu dee compte nag dana régulier te dana tegu ci tegu teguwaay te la cay génn danañ la mën di la ko rappeler donte la agio ya nga cay def lu mënul ñàkk la waaye nag il faut nga dugg ci circuit yi pour mbooloo mi ci boppam mën a dellu siwaat di njariñ lu rëy pour kon pour tariqa bi ko defee kon ñu ngi ndokkeel daairatul asfiya yi ci liggéey boobu nga xamante ni mu ngi ko jël di ko melal ba tey foo dem ci àdduna boo bëggee xam la xew Tiwaawan wala fu ne ci àdduna lañ fay def soo ko bëggee fekke yenn saa yi sëriñ mbay dana fi jóge fii dem itali nga nekk fii ci Sénégal diw nekk ci amerig ñoom ñépp di ko mën di seetaan à cause de la dairatul asfiya yal na leen yàlla dëgëral ci biir yoon wi mu nekk regroupement boo xamante ni kon dañ ko war a def mu nekk regroupement wu liggéey nit ñi ci nekk amaat ci yeneeni gis-gis gis-gis yu yéwén yéwén pour àndu tariqa bi yéwén pour kilifa yi seen bëgg-bëgg ak seeni projet na ñuy fexe ba daayira yi jël ci une bonne partie loolu yaakaar naa ku ko defal makkat mu sant ku ko defal mag mu sant kon ñu ngi ndokkeel daayiratul asfiya te di ko gën a yokk ci jëmm jëmmi jataay bi ñu fi teewe muy jëmmi kilifa yi tàmmalee ko ci xalifa bi ndokkeel leen encouragé leen ci taxawaay bii nga xamante ni ñoom ñu ngi ko jël defal ko tariqa bi defal ko kilifa yi waaye defal ko taalibe yi defal ko réewum Sénégal parce que mën naa wax ni lii ñu taxawee ci wàllu tariqa yi dafa feeñal beneen melokaanu diine boo xamante ni melokaan bu raar la te booy wër ci àdduna bii lañu soxla te mooy bi gën a sel bi gën a wér mu ni kon nag duñu guddal dañuy rekk tënk-tënk bi delloowaat mag ñi ci yoon bi nga xamante ni moom lañu waxtaane léegi ci jëmm ju tedd gii di Seydi Aboubacar mu nekkoon une contribution modeste pour que ñu xam ni moom moomu di Cheikh Seydi Aboubacar Sy doy na te ku doy nag mënees naa roytal ci yow moom moomu di Cheikh Seydi Aboubacar Sy mag la woon ci mag ñi doomu Seydi El Hadj la waaye doon doomu Seydi El Hadj Malick taxu ko dugg si ci géew bi waaye itteem ak fullaam pastéefam liggéey bu yéeme bi mu liggéey tàmmalee ci yare ci jàngale ci former personnalité doomu aadama ba nga xamante ni bu taxawee ci pénc moom moomu mu mën a nekk ku ñu naw bu taxawee ci pénc mën a nekk keno bokk ca kenoy pénc ma ndaw yi nga xamante ni ñoom la tuddee génération Serigne Babacar Sy war ñoom it fexe seen cofeel ak wut gi nu doon wut ku mat ba daj ci jëmmi Serigne Babacar Sy xam ni daj nañ ci koo xamante ni kuy wut ba dajeek moom mënatuloo am ku ko gën ñu xëy xëy sopp ko te xamuñu ko xëy xëy naw ko te xamuñu ko fekkewuñu dundam xëy xëy lañu leen nettali ci moom ña leen ko nettali di ay njabooti boppam wala ay taalibeem wala ay muqaddamam ñu xëy dëgg ca loola dëggu ga mu dëggu tax ñu approprié wu boobu héritage ci moom mu nekk fas yéene nekk seen modèle moom Serigne Babacar Sy kenn la ci ñi nu am ci modèle u mag ñi moo tax mu wax ni wa laqad allimna wa allimtum ma lana wa ma lakum min ajdaadi shaadu majda al islam wa دين الله وساهموا في بناء الحضارة الإسلامية الخالدة nee na ku mel noonu nee mënul ñàkk mënul ñàkk nu nit bu nu jógee nu jóg di xencu seeni jeexital ndax yàlla nee na ñooñee nga xamante ni fexe nañu ba fulla ji leen war a melal ñu fulla woo ko ba fu ñu nekk nekk roytuwaay neena njaboot ga jóg di xencu seeni jeexital nee na ñoom ñooñu bu ñu doxee ñu boole leen ca kuréel booba bu ñu jëfee ñu boole leen ca kuréel booba mu ni kon nag nu ngi ñaan barkeem boobu nga xamante ni ku mu am ku ne yaa ngi koy dabu mu fekk si ci surux ruq yal na yàlla defal nu ci barke Serigne Babacar si ak barke way juram wu tedd wa Cheikh Seydi El Hadj ak njabootam yal na nu yàlla defal sunu mébét yépp mottali ko nu sant bu baax baax sant sunu way jur wii ci biir di nu dégg di bàyyi Seydi Ahmed ci ak uufam njaboot ci ak jàppaleem njaboot ci ak ñeewanteem muy melo yoo xamante ni tudd nañ ko léegi muy melo juróom wa Cheikh Seydi Aboubacar te nag mooy moom ku ñëw fii ci këram ruuxu Sëriñ Babacar mu ngi fii te ruux ba moom la mooy moom ku ñëw fii ci rue nga xamante ni sëriñ Babacar boofal na fi leer goo xamante ni dootul fay mukk moom mu toog fi desal ko fi te nag barab ku fa desal mag yaay mag ma barab ku fa toog desal fa mag mag ma yaay moom moo tax moom fii moo fi sëriñ Babacar si yàlla na nu yàlla taas ci barkeem yàlla na nu ko yàlla fayal yàlla na ko yàlla bàyyi ci sunu kanam mu yàgg eh, jiitu yàgg joxeñ ñu yàgg a topp ci gannaawam lu mu joxeñ ñu dogal ko ko na mu ko bëggee ko defee dayre bi ñu dellu sant jigéen ñi xam nañ ni góor ñi jàmbar lañu naam waaye jigéen ñee leen gën di jàmbaar ku waxal yàlla xam ko taar wi taar wi bis bi am bu dul jigéen ñi mënul ne ñun daal sikkim bu rëy rek jëxam rek yàlla na nu yàlla musal ci nun yàlla musal ci nun nun góor ñi daal sikkim bu rëy rek jigéen ñi nag ñoo ko jox taar sol colka yu yanj yooyu di defar ba mu baax di tabax ba mu kawe boole ca salañ-salañ ja moo tax mënul ñàkk ñu sant leen yàlla na leen yàlla fay waaye ñooy lépp ñoom kañ ñooy lépp ñooy lépp yàlla leen yàlla mottalil góor ñi nag dañ ci ànd rek nag ah Paab ñoom Mansour Mouhamadul Mansour àndandoo ca rek waaw ah, waaye bu rek daal wax ju bëri ji ñoom ñoo ko yor waaye jigéen ñi ñoom kenn du leen gis waaye bu bis bi jotee ñu xam li ñu mëne moo tax eh, moom Baba sëriñ Babacar daan na wax ni maak ñoom a far de ñi baax ñëpp jigéen ñi lañu far ñi baax ñëpp ca yonente baak léegi ku baax yaag jigéen ñee far ca yàlla ñi baax ñépp ñoog jigéen ñee far yàlla ni ñooy sama associé kóolute googu mu am ba ni sama dénkaane ki ma koy dénk wóolu ko ko dénk ñoom jigéen ñi la kon yàlla ku mu wóoloo dénk wax dëgg yàlla ñëpp lay wóor wóor nga yàlla na leen yàlla mottali seen mébét ak seen yéene tarbiya bi ngeen joyal ko ci àqu Sëriñ Babacar Si barke ak barkeem ak leeram yalla bu mu leen mooy te du leen mooy bu ngeen fi jógee ku bëgg sëriñ na ko am ci barkeem bu ngeen fi jógee ku bëgg eh, eh, métier na ko am ci barkeem bu ngeen fi jógee ku bëgg eh, moo xam tukki yoon wu jàppandi yoon wu mucc ayib na ko am ci barkeem bu ngeen fi jógee ku bëgg mashruu boo taxaw moo xam projet boo nekk yàlla na la ko yàlla mottalil ci barki sëriñ Babacar si rawatina barki maamam barki baayam ba Seydi Hajj Malik nu sant bu baax a baax dañu ni ah toogaay bi dafa yàgg te li nu dajale yépp ci ay not mënuñu ko fee wax ndax du fi yàgg du fi xaj te sëriñ Habib am na lu mu jot indi te bis bi dañu bëggoon rek mu nekk fàttaliku nekk zikra waaye zikra boo xamante ni day delluwaat ñu réviser waat une partie ci dundam parce que dundu ga yëpp mënee su ko revisiter ci benn ngoon ñu ni kon nag nañu jël wàll wii rek def ko mu nekk témoignage ci moom sunu seede ci nangu gi ñu nangu nekk taalibeem wér gi mu wér ci sunu xol nun ñëpp nu bokk fi daje waxante ko encourageante encouragé daayira bi di asfiya yi encouragé ko itam ci taxawaay yi nga xamante ni moom la nekk di def jëmale ko ci daara ji ci kër gi nga xamante ni borom moo ko defoon muy këru daara Seydil Hadj Malick cëslaayale ko këram ñoom it ñu jóg fas yéene ko dundal jàppale ko mag ñi rawatina ca zawyaam bële nga xamante ni daf ni woon ñetti zawaaya yi fekk ñu ngi nekk ci réew mi di leeral li ñuy leeral Sénégal xel di ci dal zawiya bële ca Ndar ba ca ak bii nii nga xamante ni mooy bu dakaar bii kon nag liggéey yooyu ñu gën koo dénku ñetti fan yi ngeen jël def ko mu nekk ay journée culturelle jekk na ni bakkan ci xar kanam Sëriñ Babacar Si yell na lu ko taalibeem bëgg defal mu defal ko ko yell na lu ko taalibeem defalit lu ko soppeem defal lu ko njabootam defal yëg na ko te nangul na la ko cofeel boo ko wan nangul na la cofeel ba daf ni woon maa la sopp maa la raw moo koy faj sëriñ Babacar si ku ko sopp sopp na la sëriñ Babacar si ku ko bàyyi xel bàyyi na la xel sëriñ Babacar si ku ko yóbbaale ci sa mbir yóbbaale la yóbbaale na la ci mbiram ca la mu am ca yàlla kon nag yal na nu yàlla defar rek ñu di ko sopp rek waaw bu nu mënula mel ni moom ñu melal sunu cofeel ci moom ndax mënuñoo mel ni moom ñu di ko roy ci dénkaaneem yi mu bàyyi di ko roy ci li nu dégg nga xamante ni nun ñii ñëpp dama koo laaj sëriñ Abdul Aziz ma ni ko waaw yéen ak nun kan moo ci gën a sopp sëriñ Babacar si mu ne ma ñun mat ñi ma ni ko ah nañ ko xoolaat mu ne ma nun mag ñi ñoo leen gën a sopp sëriñ Babacar Sy ma ni ko waaw ñun fekkewuñu ko dégg ko rekk sopp ko ci li ngeen wax ci moom yéen ngeen fekke ko tax ngeen sopp mu ne ma waaw ndax nit mënul sopp lu mu xamul nun nag dañu koo xam ndax dañu koo fekke xam ko ma ni ko ah boobu de bu ñu ko delluwaatoon ci place ba moom boo moytul dañ ko discuter waat xaw ma nag ndax suñu baay bi di xaj Mansour Diop ndax d'accord na ci loolu moom Serigne Abdou wax su fekkee ni d'accord na ci ah kon loolooy li am waaye bu ci d'accordul nag kon dafay jaadu nun daal fekkewuñu dundam waaye sopp nañ ko xamuñu dara ci moom fekke ko waaye sopp nañ ko cofeel googu nag mënul ñàkk ñu am dara ci moom yàlla na nu ko yàlla mottali nu sant ñaan ñaanal waa koñ bi yëpp waa plateau yëpp dawaayir yi ñu fi tudd euh, sunu mbokk tudd na ko léegi daayira yëpp ñoo ñëw tudd na fi daayira ni'mati daayira mutahabbiina fillaahi sunu mbokk soxna ndey jàll moom it na ko yàlla fay yàgg na mu ànd ak daayiratul euh, lu yàgg lool ñu nekk ay ndaw mënuñu dara mu di leen boot di leen rogganti di leen jàppale mook mbokki daayira ba yëpp tabarakallah ba yàlla dogal li mu dogal ah ñoom ñi nag li ñu seede nii ci man eh, xëy na wolof moom mbir bu sottee rek am boroom waaye yàlla ngi dogal ñun li nu def defuñu ni dañu ko defal ñoom pap suñu bopp lañ ko defal parce mbir mi dañu cee bokk premier jour bi mu ñëwee ni ma nun kat man suur def noo jox ndigalal daayira ci plateau ma natt plateau xool ko booba maa ngi jànge fii ma xool ni ñi tàmmalee fi ab daayira bu ñu ko doxalee ba mu sotti bu amul ku leen jàppale rek dana jafeñ ci ñoom ndax melokaanu fii donte la mooy péncu mag ma Seydi Hajj Malick daa ñëw xool euh, palais gouverneur xool église katolik ñëw ca wet ga làng fa làngam làng googa ba léegi mu ngi existe bokk ci leer yi yore Sénégal gi ma ni kon nag ay xale bu ñu taxawalee lu mel ni ci diggu plateau ti ku xam melokaanu quartier bi ak li fi nekk yépp nga xamante ni yombul doxal fi sa diine mu correct yombul doxal fi sa tariqa mu correct yombul bëgg am melokaanu jikko yàlla moo lay dimbali rek boole la ci ñamu tàggat waaye waajur bu fi nekk yore njaboot suba soo xëyee sa fit du dal ngoon soo gontoo sa fit du dal ndax xamuloo njaboot gi nga am lu muy taseel ci mbedd bi te njaboot gaa ngi ci mbedd bi bu leen yàlla nag aaree may leen ba bu ñu demee ba 31 décembre jot nit ñi di xantoo naan dañu koy ni ko njabootu ndaw gi di féete fii ci réew mi parce que foog nañu ñëpp moom la ñuy def moom lañu ñu war a def te fekk na diine moom am na lum leen digal ñoom ñu ni la leen seen diine digal la ñu koy defee 31 décembre ñëpp di ko xalaat ñoom ñu ni ah ñun kat le premier janvier dañ koy def mu nekk sunu jour jour boo xamante ni dañ ciy melale mbaaxu mag ñi fii ci plateau kooku yaakaar naa ni boo ko tàmbalee ay at lu ñëw yëngal la bàyyi la fi wane na ni pas-pas baa dëgër li ngay doon doon ndaw pas-pas bala meññ muy pas-pasu wayjur wa moo dëgër boole la ca kon nag ñoom ñi dañu leen di ndokkeel ci boobu taxawaay ñaanal leen yàlla yàlla yàlla na yokk gunge leen ci yoon wii eh, yokku leen lépp loo xamante ni leer la mu leeral ko seen yoon yokk leen lépp loo xamante ni tawféex la mu defal leen ko féexal seen yoon waaye sàmm leen sàmm seeni jéego sàmm seeni jéego ci kaaraangeem googu ak jàmmte googu nga xamante ni ku mu aar nga mucc ku mu sàmm nga yegg yàlla na leen yàlla taxawu yàlla defal leen ndam ci li ci kanam may leen jàmm jàmmi biir ak jàmmi biti defal leen bépp matuwaay bu ndaw di wut yal na leen yàlla may ngeen am ko ba du ngeen ko ñeewe kenn ku ko am yàlla defal leen it dëggalal leen seen yàkkaar bi ngeen yàkkaar ci jëmmi Cheikh Seydi El Hadj ak njabootam rawatina kii nga xamante ni mooy symbole Maodo di Cheikh Seydi Aboubacar si yàlla defal leen te lu kawe seen njor te nag boole leen ci dimbalante ci dëggu ci diglante yiw ci seedalante lu rafet loolu yàlla na ko yàlla boole defal may nu nag jamono naqari na waaye li muy naqari naqari yàlla na yàlla nootal ba kenn ku ne mu neex yow jamono naqari na waaye li muy naqari naqari yàlla na ko yàlla nootal ba kenn ku ne mu wëlbati ku neex ci yow réew mi metti na waaye li muy metti metti yal na nu yàlla ñëwee bett ak mbiram jagalal nu ko ba tartar yi nu fi dund ak li nu ko teg ak ñi nu ko teg yàlla sempi leen ni puso indi ku baax koo xamante ni kuy yombal dund njaboot yi la yal na nu ko yàlla defal ci réew mi réew mi metti na de réew mi metti na waaye ku am sëriñ Babacar si dootul metti ci yow ku am Seydil Hadj Malick dootul metti ci te am nañu ko ñii ñoo tax doo dégg ku ni uh kenn du ko jàmbat waaw ci seen formation ci nun ci seen jàppale ci nun ci seen itte ci nun moo tax mënuñu leen a fay yal na yàlla wutuñu ci ñoom fayal nu leen ba eh, li nga xamante ni nag moom lañ koy jeexale mooy sant sunu ustaas yu baax yi nga xamante ni ñoo yore daayira bi di oustaz Serigne Mor di oustaz Maam Ousmane nga xamante ni ah ñoom ñoo bokke lañu ñu bokke ci mbokk ak deret waaye ci pas-pas mbokku taalibe ak morom ma tabaarakallah muy sunu soppe ànd ko ñi mu ko àndal dairatul asfiya bureau bi nga xamante ni comité organisation bi ak commission yi nga xamante ni ñoo ko séq yëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen di san ci turu xalifa bi nga xamante ni ci ndigalam la amee sañ-sañ bii ba ñu sañ fee ñëw rawatina Cheikh Abdoul Aziz ci suba dafa ma woolu di ma yónni am fu mu ma doon yónni ma ni ko ah man xale yële ca rutière ñoo ma waxoon ñëw fekk si leen te na ko mu ne ah, waaw waaw wax nga dëgg wax nga dëgg demal foofu moom foofu moom farata la demal walbatiku ni ma ah lii ñoom dama leen waxoon sax ñu ñëw Tiwaawan fekk ma fa keroog bañ ma fekkee ca Dakar ñëwuñu boobaak léegi kon bala ngaa dem xaaral euh, léegi ma jox leen mu nekk sama barkeelu mu nekk seen addiyey maam mu jox ma yéeneem ni naa ko teg ci loxo Pap Xalifa jox naa ko ko léegi mu ne ma itam naa ko jotalal ndokkeelam ak ay encouragement am wan leen ni mu ngi ànd ak yéen ci lii ngeen di def ndax lii ngeen di def moom ngeen ko defal lii ngeen di def ku sëriñ Babacar si am moom ngeen ko defal lii ngeen def neex na doy na tabaarakallahu ngeen yëkkati lu mel ni mu di leen ci encouragé te di leen ñaan ngeen fexe ba saxal ko ndax leeru xadara bi yéen ñi fi nekk yéen a ko mën a saxal nu àndandoo ca liggéey wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin yàlla na nu yàlla boole defal jàmm ñu jox ustaaz Birsa